ahosbillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñuy topp ci site internet bi di 24 fu ngeen mën di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu di nuyu di jaajëfal ñoo desuwaat ak yéen ci seen waxi sëriñ tuubaay soxna Faati Dia radiyallahu taala anha nee na sëriñ Tuubaa xaada lahu laahu maxtaara lahu nee na ko gabon lama fa nekk lépp tubaab yi ñoo ma daan rootal ba ni fa sëriñ Modou Dagana ñëwe nee na ko itam li tax ñu yóbbu ma foofee mooy daa am gott yu fa nekk yoo xam ne gott nag buñ ko waxee ci olof muy loo xamante ne luy màtte la lu mel ni saa suñ suñ la màttee lu mel ni sibiru moo lay def yoxoos ba keroog ngay faatu te it xorondoom yi fa nekk dañuy jëfandikoo doomi aadama Sëriñ Tuubaa xaadalahu laahu maxtaara lahu nee na ko tubaab yu jigéen ñi bu ñu mësaana xëy dañu may wër defi sàppi ngir xaalis ak wurus yu ñu ma daan yet ma leen koy sànni loolu moo tax bi ma fay jóge ñoom ñëpp dañu doon jooy mel ni seen bokk daa faatu Sëriñ Tuubaa xaadalahu laahu maxtaara lahu nee na ko diirub la ma fa nekk kenn laa fa mos a jullee muy daba sëy di soxna si yelli sëy yaayam tudd xawaa kon mbokk yi ñuy bàyyi xel ci site internet bi di 24actu fii la ñuy yem ak yéen ci seen waxi Serigne Touba yi di leen wax ne bu leen fàtte ne di abonné ci suñu site bii di 24actu ñu ngi leen di jaajëfal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu